d'abord moi, justice madame, un juge donne une décision décision bi ne c'est pas suspensif dañoo war réintégrer Ousmane Songo, jox nous avons dem possibilité de ay parrainage lu le nguur gi am le droit def recours recours bi continuer le temps que nous koy apprécier Le recours est également apprécié à la faveur de l'état parce que day am raison ba à la faveur de l'état Ousmane continuer Pour dem ci élection sénégalais encore une fois avons voté nañ bàyyi képp ku bëgg woote